asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo nañ dañu seetaan ñoo ngi amaan mbégte ci taxaw fii nga xamante ne bii moo di saam buqaxatul mubaarak e, fego ak Serigne Saliou Dieng mi nga xamante ne bii moo di chef de village su e, saam buqaxatul mubaarak Eh, ñëw nag ci ndigalul eh, Serigne seex Mbacke moom Serigne Salihu yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér waaye ci kilifteefu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Touba tuba na ko fi yàlla yàggal te dolli ak wéram ñu ñëw nag bokk yi ci bu ngeen jàkkaarloo ak li ci sun ginnaaw mu di jalu gerte bi nga xamante ne bii camion yi ñu ngi tàmbali di ko andi dafa jëm ci wàllu xollim jiw mi nga xam ne jamono ji saa yu masa aksi sëriñ Cheikh mu sëriñ Saalihu ni mu séddalee ay liggéeyam kenn ku ci nekk la cay sa wàll mu jox la ko ndax noonu la doon doxee ci jamonoy sëriñ Saalihu ba aksi mu wax ne ne képp ku sëriñ Saalihu daan yónnee ab yàq danaa la ko jox bu dee ab tibit danaa la ko jox waaye fa suma yéene kenn fande ci liggéeyub sëriñ Saalihu bi loolu moo taxaat mu fab liggéey bi joxaat ko sëriñ Saalihu Jeng moom nag buñ ko tuddee rek xel yëpp dem ci kër sëriñ Balla Fally Dieng gi nga xamante ne bii eh, lépp lu mu am ci tubaab moo tax mu jëm nag ci wàllu xooli gerte yi dañuy bàyyi ak Baye Saliou mu nuyoo ñu ngi delloo ak sëriñ Assane Thiam mi nga xam ne mooy toll toppatoo lépp lu jëm ci wàllu matériel bi ak liggéey bi Baye Saliou nuyoo ak bokk yi xamal ñu ndigal li ni mu ñëwee ci moom su ko defee ñu agsi ci ay leeral salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki julli di bokk maa ngi di nuyu nuyoo ba gën tey sant rek nag cant goo xëy nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam cant gi mooy liggéey Sëriñ Tuubaa ñam ci yow yaakaar ba jaaree ko ci yow loolu mu amul lu këpp lii dañ ko defal sëñ Seexum sëñ Saaliw ren jii maanaam mu yónneewaat ne dafa bëgg maanaam nañ ko naa defee ñu defee ko noonu mënu ma ko ñàkk mboole ki teraanga yoo xëy ni jàpp na ne jomb na ma mu rëy ci noonu lool nag ba loolu xamee nu daal di jokkoo kilifa gi xalif général des mourides mu xamal ma ne ma jox naa la ci ndigal na nga ko soññee bu baax a baax a baax te ma loo bëgg fas ko ca loolu wér na ma jóge fa dem daaru jëng ci sama sëriñ sëñ Modou Jëng bala Fally ba ko waxee mu ne ma loo ca mën na ko def ndax lu ñu la jox rek sëñ Balla Fally moo tax ñu jox la ko kon ah, nañ ko daan defee ku ne xam na ko man am naab cir waaye day mel ni am na ay cir lay wax ndax bu xasee baaraka maanaam mooy fi nga xëy li fi ñu taamu indi gerte gi ngir ñu xoolee ko fi muy fanweeri quartier ak juróom-ñett léegi li ñu bëgg mooy mboolem délégué de quartier yi ñu ngi leen soññ ak mbootaay yi ak daayira yi Tuubaa gépp ñu ngi leen soññi kilifa kili fi nekk yëpp it ñuy jaar ci wenn tur ndax noo ko bokkan noo ko bokkaat may duy dolli maanaam képp koo xam ne nii ñeenti bor na ña nga dëkkee sëñ Saliou moo la ko jox ñaan naa la nga ñëw ci liggéey bi. mbokk yi Baye Sall wax na ne <clears throat> eh, woote bi da koy tàmbalee ci mbooleem njabootu sëriñ Touba gi nga xamante ni bii liggéey bi ñoo ko moom bu ñu tuddee njabootu Serigne Touba nag bàyyiwul benn buntu kërub seex bàyyiwul benn buntu kërub doomi Serigne Touba waaye bàyyiwuñ nag benn donga bu mas a jaar ci daara sëñ saali Saaliwu tarbiyee ci bàyyiwuñ benn donga bu mas a jaar ci daara tarbiyee joo mën a jaare te yoonu murit eh, ka ka ngay tarbiyee wu Sëriñ Tuubaa seexaloon ko maam Sall nee na bàyyiwu ci kenn rawatina nag fii ñu nekkee di Bokhatul Moubarak noonu mu ko waxee quartier yi chef de quartier yi chef de village yi association yi mbootaay yi maire yi daayira yi eh, seex si fi dëkke jëwriñ yi nee na ñëpp la soññi bàyyiwul kenn waaye ginnaaw bu soññ bi jàllee ci Bokhatul Moubarak jàll na ci Touba gépp nag nee na mi ngi ko yëgal ku ab daay ku yor ab ab daayira te nekk Touba te liggéeyal sëñ tubaa ñor la liggéey baa ngi nii ci Bokhatul Moubarak mu di xollim gerte ñii ñëw nag li ñuy indaale mooy passoire ak ay xotti saaku képp koo xam ne yaa ngi bitim réew liggéey bi boo ci liñ ci mën a jàppe mooy xam ngeen ne ñi fiy daje ci mbooloo day bari te seeni xiiwal itam Baye Sall nee na bu ko dee yalwaani dana ko yalwaani waaye du ko teg Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ndax dong moom saa yu jotee ci ndigal sañ naa gàddu bàttam yalwaani nee na kon mbooleem ñi dëkk ci Bokhatul Moubarak ak li ak ñi mën a def ngir yàlla képp ku mën a togg ay añ andi ko ci liggéey bi ku mën a jënd am ndox andi ko fi ku mën a ñëw jàpp ca xotti saaku ya ku mën a ñëw jàpp ca passoir ya lu mu ci mën di doon Serigne Saliou nee na boo ko andee ci liggéey bi des na ko ci defal kon sëñ Assane ngi lay bàyyee ak kaddu gi laata ñuy soññiwaat bokk yi nga xam ne ñoo nekk ca lu mel ne ci yeneen régions yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santit sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko nuyu di ko siyaar bu baax te ñaan suñu borom gën a guddal aw fanam te wéral ay di ñaanit sëriñ Seex moom sëriñ Saaliw di ko ñaanal bu baax suñu borom guddal aw fanam te yokk ak wéram ba yéen yi mu am ak naal yi ñuy ñaan mu àggale ko te ànd moom ci barkeb sëriñ Saaliw liggéey bi nag comme mooy nii ko sëñ Fallou waxe ak sëriñ Saaliw Jeng liggéey boobu naka jëkk sëriñ bi daa amoon yéene ngir indi ko saam gi ndax saamkat day saamub sëriñ Saliou saamub sëriñ Saliou nag sëriñ Saliou ba sëriñ Cheikh ñëwit xalaatam moom rek la am indi ko fii ànd liggéey mbokki taalibe yi kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn mbootaay yi nga xam te ñoo daan ànd ci liggéey bi jàpp nee na ngi leen ciy soññi daayira yi nee ngi leen ciy soññi mi ngi ciy soññi képp koo xam liggéey bi sëriñ ñor na la sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou nee na mi ngi lay woo ci liggéey bi niñ ko daan baaxoo daan ko defee nee na ba tey nee na noonu nañ koy continuer te wéy ci te ñaan sëñ Tuubaa defal na ci ay ndam ndax nee na liggéey bi seel na rafet na te kawe na njort kon nag nan xam ne liggéey bi nee na fas yéene koo jële yóbbu fenn furut biir saam gii kon nag nan xam ne liggéey bi liggéey xel koom la képp koo xam ne jote woo xel koom na xam ne xel koom a ngi nii andi jëlee nañ gerte gi xel koom andi ko fii fas nañu yéene comme niñ ko baaxoo daan def machine des na ko xolli jox ko jox ko soxna yi ak mbooloo mi ñu tànn ko ba mu seetlu ba ni ko sëriñ bëggee ñu defe ko ni def ko ci ay saaku daal di def doom bi doom yi nga xam ne moo koy war ko aar defar ko ba mu jël ko jébalaat ko sëriñ bi sëriñ bi yóbbu ko ci daara kon nag loolu moom mooy bi machine yaa ngi nii liggéey bi nag deeran tàmbalee tey jii ci àllarba ji képp koo xamante ni daal dégg nga ko nga yëg woote Saliou Dieng dégg saa wa dégg woote mboolem ñëpp nga xam ni kon sëriñ bi woote na ndax kàddu gi genn kàddu rek la te lépp dara génn ci sëriñ bi kon nag nan ñaan ci barkeb sëriñ Saliou sëriñ Tuubaa defal ñu ci ndam ñu ngi woo daayira yi ak mbootaay yi bàyyiwuñu kenn di soññi tamit sëriñ Ibrahima Sène mi nga xam ne sëriñ bi tamit daana ko wax muy soññi daayira yi kon tamit ñu ngi koy comme digal li ko sëriñ bi joxoon muy soññi daayira yëpp di sant si Ibrahima Gaye mi nga xam ne moom moo nekk moom ci kër sëriñ Tuubaa gi it ñu ngi ko yégal moom it mu soññi mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk tan ànd ko moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kuy kon woote baa ngi noonu Serigne Saliou Dieng mi ngi nii taxaw képp koo xamante ne bi bëgg nga ci ay leeral soo ko woo ci numéro téléphone am mën a jokkoo ak moom eh, su ko defee lépp loo bëgg a participer ci liggéey bi soo ko yónnee mu jëm ci wàllu saaku yi wàllu machine yi lépp dana ko dana ko mën a toppatoo kon xam naa ne itam sëriñ Assane mi nga xam ne mooy toppatoo itam lépp lu jëm ci wàllu xolli bi mi ngi nii ànd ak machines yi sëriñ bi andil leen ko fi eh, sëriñ Saliou nag wax na ne mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba Xaadim Rasul ñaan ci darajey sëriñ Balla Fally Dieng mi nga xam ne mooy njëkk a miraas boppam jox ko sëriñ Touba képp ku ci xolli ab doom baa nga setal ko ci wala nga jàpp ci liggéey bi ak noo ci mën a jàppee yal na la yàlla eh, dugal ci biir tawfeexi sëriñ Touba Xaadim Rasul waaye yàlla la sëriñ Touba may ci li nga xam ne moom lay faye ëllëg sëriñ Balla Fally mi nga xam ne nee na koon danaa la wutal ci ajjana ak mbooy nee na sëriñ saaliwu nee na ku jàpp ci liggéey bi yàlla nga bokk ci mbooy googe ci barke Cheikh na Amadou Khadim ñi ñaanalaat sëriñ Cheikh mu sëriñ saaliwu yàlla yàggal ko fi doole ak wéram di ñaanalaat sëriñ Touba Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ko ku wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu